am ndomba tànk te nag fii ci Sénégal loolee tamit kenn mënu ko dàq ndax gis nañ fi ñenn ñoo xam ne maanaam saaga rek ak xase moo tax ñu am poste yi nga xam ne amee nañu ko te nag bu ñu amee ay poste ngir nag bañ ko ñàkk dañuy continuer ci saaga yi ak xase yi te loolu nag mbir la moo xam ne mbir mu ñaaw a ñaaw la yéen kaay gi di libération ñu xëy fekk fa maître Omar Youm mi nga xam ne moo jiite groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar moom nag daat nay wax ne député yi bokk ci opposition bi ak député yi bokk ci nguur gi maanaam ñëpp ñoo war a xoolaat seen bopp ndax am na ci doxalin woo xam ne maanaam doxalin wu ñaaw di Omar Youm la nee na l'heure est grave te nag nañu leer ne jamono ji àdduna bi yëpp ñoo ñuy seetaan yéen gi di source ñu xëy fekk fa député Abdoulaye Diouf Sarr muy yedd député yi nga xam ne ñoo bokk ci nguur gi ak député yi bokk ci ku jigee moom député Abdoulaye Diouf Sarr nee na député yi dañoo war a xam ne maanaam moomuñu réew mi te nag xale yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan maanaam dañoo soxla ay repère yéen kaay gi di réew mi ko di cee xëy ne député Amy ko jagleel ko Serigne Moustapha Sy loole conférence presse Khalifa Ababacar Sall ma nga fa woona waaye tamit Ousmane Sonko ma nga fa woona moom njiitul Pastef nee na nag jamono ji maanaam ligne rouge bi dañu ko weesoo lii raam egg na sa ñag ba moom Ousmane Sonko nee na nag bii nga xam ne maanaam moo fi nekk di saaga Serigne Moustapha Sy na ko leer ne Macky Sall mi nekk ci ginnaaw moo tax te nag jamono ji ñoo ngi fowee ak li nga xam ne mooy safara on joue avec le feu loole la Ousmane Sonko wax on nag waaw fële la dëkk kii nangam sangama kii tarixa bii la bokk Ousmane Sonko Macky Sall la ko tuumaala yéene kaay gi di 24 heures moom njiitul Pastef nee na nemmeeku tur bi nga xam ne moom lay amal loole nag ci boppam si la am firnde bu leer ne askanu jii jamono ji bëggatuñu Macky Sall Ousmane Sonko ne sa dëgg dëgg dëgg askanu Sénégal bëggatuñu Macky Sall yéene kaay gi de la témoin nee na coalition Yewwi Askan Wi ñoom nag Macky Sall la ñu tuumaala ne moo nekk ci ginnaaw song yi nga xam ne moom la ñu song Serigne Moustapha Sy Macky Sall moo nekk sa ginnaaw waaye kaay gi di réew mi quotidien jigéen ñi nga xam ne nag ñoo ànd ak Aminata Touré ñoom tim wax nañu de génn nañu ab communiqué nee nañu Macky Sall si boppam moo war a bàyyi di transformer jigéenu Benno Bokk Yaakaar yi ay saagakata nee nañu Macky Sall ci boppam jamono ji dañuy gis ne dafa jël jigéenu Benno Bokk Yaakaar yi def leen ay saagakat te loolee lu man a ñàkk la yéen kaay gi de la témoin xëy dañu xibaar naan ñu Antoine Diome niki démb ma ngi woon ci assemblée nationale la waaye Antoine Diome impopulaire na de ndax nag li nga xam ne moo jëm ci vote budget bi lu toll si ñaar fukk ak juróom

xam ne dafay sant préfet yi ngir nag ñu dugal ay recours ngir éliminer ay liste Yewwi Askan Wi waaye lâcheté nag mooy sa soxna ci boppam bokk ci complot bi gën mag ci réew mi Abbas Fall na ko lâcheté nag maanaam weesuwul njiitum réew moo xam ne nee na coñcoom da koo teg nag ci ay dossier yéen kaay gi di Source A ak Le Réveil Quotidien xëy duñu xibaar naa ñu nag bi ñoom disqualifié yi nga xam ne moom la ñu dëgma la ndax nee nañu Antoine Diome du ko organiser ndax dafay parparloo journal bi nee na Fulbert la koy jébbal boromam yéene kaay gi di 24 heures njiitu réew mi di président Macky Sall démb nag dalaloon na ñi nga xam ne ñooy sëriñu daara yi sa jam ñaajo Macky nag nee na dafa bëgg a suqali daara waaye ba pare tamit daal leen di jàppale xam seeni jafe-jafe yéene kaay gi de la turbine nag daal nay wax jàngalekat yi lu leer nee na leen bu ngeen yamee rek si jàngale du ngeen am benn problème yéene kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa imam Elimane Diagne daal nay wax Macky Sall ne ko ñun nag sëriñu daara yi li xam ne mooy yor lépp loo xam ne jëm na ci wàllum daara daara yéene kaay gi de libération njiitu réew mi di président Macky Sall démb ak sëriñu daara yi nee na nag dina xar tànk ma ngir nag moderniser daara yi lu toll ci juróom benn milliard ak yu fegg la Macky Sall bëgg a jagleel daara yéene kaay gi de libération xëy dañu xibaar naan ñu Cheikh Ahmed Cissé mi nga xam ne moo fi yëkkati woon kàddu yu doy waar yi daal wax ne dañoo war a séddale ay préservatif si biir jàkka yeeg jumaa yi na ko ca kasu bu rëbës yéene kaay ko di xëy dañu xibaar naan ñu musiba am na ci réew mi de musiba am na ci réew musiba am na ci réew mi ndax nag ñi nga xam ne ñooy hémodialyse yi jamono ji nag soo muy tuule danañu am ay jafe-jafe hémodialyse yi danañu am ay jafe-jafe ndax nag li ko waral mooy kit yi nga xam ne mooy tax ñu mën a def seeni dialyse loolee ci boppam moo manqué ci bërëbu fajukaay yi na leen leer na jamono ji daal hémodialyse yi mën la ñoo ngi ci guddi gu bët séddigu la yéene kaay gi de la témoin xëy dañu xibaar naan ñu tay la tay tay la Sénégal Équateur maanaam bu ñetti waxtu jotee dund baa dee yéene kaay gi ñu fekk fa nee na nag lenn am ñibbi Sénégal njaay sa ceebu ba yéen i kaay gi nee na nag il faut ñu amal boo xam ne bu mat sëkk la journal bi nee na gagné ou périr yéen gi nag nee na entraîneur Équateur bi nee na moom ñëwul pour match nul ak senegal dafa ñëw pour gagné Sénégal yéen i kaay gi di Sud nee na gagné ou rentré Aliou Cissé moom nag daat nay wax lu leer nee na mbir mi amul calcul la yéen i gi di bés bi entraîneur bu senegal la nee na nag Sénégal réew la moo xam ne askan wi fi yeewoo bëgguñu defeta yéen i kaay wal